topoto ndaw ñi ya ngi leen di jappalé ya ngi leen di accompagner di leen financer def def li la war dal ya ngi koy def tay lu fi nit mëna wax lu nekk moy da war wara gëreum sant la ba pare jox la ay xalaat yok sa feuille de route yaakaar na tay loolu lañ ko waron def ndax ministère bi nga yor dafa nekk ministère bo xamné du ay tiaxaan ndax ndaw ñi la wax ta ndaw ñi buñ koy waxtane ñun ñëpp dañ ci wara and suñu xalaat xol fo xamne moo ñu war a avancer dans ce pays ñun dañu soxla développement dañu soxla jëm ca kanam soxla wuñu waxante lu bon soxla wuñu waxante lu ñaaw ndax ku xam jeune xam ndaw dëgg xam ne mooy tabax réew Sénégal bu amee jeunes yi tey jii nekk ñu nekk à l'aise jaar fa ñu war a jaar yaakaar naa ne demain danañ ñu boole ci réew yi nga xam ne gën nañu sori kon madame la ministre man du ma def lu dul jaajëfal la di la sant ci programme yi nga xam ne yaa ngi koy def

kon ñu ngi lay ñaan lu mu gën a gaawee dag boobu mën a taxaw ndax ñun suñu département mën si gis seen bopp damay sant kenn ci say ci say lieutenant muy Pape Malick Ndour soo ko woowee dina la jël soo ko laajee xalaat dina la ko wax te wax dëgg yàlla mi ngi accompagner jeunes yi di leen orienté ci dag bi nga xam ne moom moo gën moo commencé nekk ba Ziguinchor pour ñu mën a def ay activité de revenu pour Sénégal mën a jëm kanam xam nañ sa yar xam nañ sa teggin sa efficacité nag moom waxaale wuñ ko ndax yor ay ndaw dafa metti jiite ay ndaw dafa metti sa yaa ngi ciy def li li nga man kon mënuñu lu dul indi la li nga xam ne moom lañ yaakaar ne buñ ko dollee ci sa feuille